jërë ngeen jëf tiis wi réew mi fanaanoo moom la yéen a kaay xëy yeewoo mu di nelawu ko Cheikh Béthio Thioune l'observateur bokk ci ñi xëy di ñu tàggee njiital cantaakon yi mi ngi ñuy wax li xew ci waxtu yu mujj yi Cheikh Béthio Thioune ci kaw suuf démb ci tisbaar ji maanaam ay deux heures ci digg bëccëg gi ci la Cheikh Béthio Thioune wàcceb liggéey ca clinique Bergogne ga ca Bordeaux ga ca France ci juróom-ñett fukki atam ak benn ci la nuppalu ndax 1938 la gane àdduna 2019 la fi bàyyee ko ay jaar-jaaram moom njiital cantaakon yi at mi mu gane àdduna ca kër Samba Lawbe ni mu faatoo ca Bordeaux lu ci bari mi ngi ci biir journal l'observateur l'observateur yamu ca ne mi ngi ñuy xamal it Serigne Mountakha Mbacké Bassirou xalifa général des Mourides ana nan la yëgee nelawug Cheikh Béthio Thioune ab néewam moom cheikh bi journal bi nañu dana jóge France ajjuma ji ñëw ñëw Sénégal te ca Madinatul Salaam bu ñu moytuwul fa la ñu koy denc ndax moom cheikh bi ci ak dundam neewoon na ay doomam su ma fi bàyyeekoo na ngeen ma denc Madinatul Salaam ndax Serigne Saliou Mbacké mii sama lépp moo ma joxoon digal li libération moom it xëy ci tiis wi xëyee li mu tudde waxtu yu Mbacke Cuun ci jamono altine ba léegi mi ngi woon dans le coma démb ci talaata ji ay deux ci digg bëccëg gi ci la mujj faatu yéenekaay bi dañu wopp ji ko tëraloon ba taxoon ñu yóbbu ko France ngir mu faju ji ba mu waree dem France yàgg na waaye ngir bañoon a wuute màggalug daaw gi moo taxoon mu décalé woon ab tukkeem ñaari weer maître Ousmane Seye bokk ci avocat yu Cheikh Béthio Thioune yi mi ngi ñuy wax ci xët mu njëkku libération kàddu yu ndénkaane yu bàyyeeko woon ci Cheikh Béthio Thioune maître Ousmane Seye nee na Cheikh Béthio dane ma maître ma ne ko naam mu ne li war am ci samay mbir ko bu nuppee enquête dina kay nañu dëgg gi féete kaw dëgg yépp dikk naa ko dogalam Le Quotidien nañu Cheikh Béthio Thioune fekki na attekat bu mag ba mu di yàlla sunu borom Les Échos ne ko fekk jiit wasiilam wa di Serigne Saliou Mbacké direct ay fa nañu ndax yàlla Cheikh Béthio nuppalu ci bés bu njëkk ci weeru koor yéenekaay bi nañu ci la Cheikh Béthio fekk ci Serigne Saliou Mbacké Vox Populi nañu ab cheikh boo xam ne kenn la woon ci jamono moo jeexal ci jamono fi ñu a a a am lu di cantaakoon diakon yi jirim nañu baayo nañu Cheikh Béthio Thioune dem na wéetal leen Serigne Saliou Thioune di doom ci Cheikh Béthio Thioune di ñu wax ci La Tribune ne way juróom wi di Cheikh Béthio Thioune ba ni mu génnee àdduna kenn waxu ko li justice sub Sénégal dogaloon ci moom maanaam verdict bi tukkee woon ca tribunalu Mbour ba léegi Cheikh Béthio Thioune yëgu ko Sud Quotidien nañu Serigne Cheikh Béthio Thioune yàlla sunu borom dogal na ci moom la muy dogal ci moom génn na àdduna démb ca Bordeaux ga ca France journal bi gis ne njiital cantaakon yi lii mooy cantam gu mujj la ni ñoo ci raw Cheikh Béthio Thioune da a wéetal lool soleil national moom it xibaar bi la xëyee ci xëtamu njëkk delloo sil ñu waxtaanu mu séqoon ak Cheikh Béthio Thioune fukki fan juróom-ñaar ci weeru avril atum la woon ca waxtaan wa Cheikh Béthio Thioune ma ngi fa doon leeral lu bari ci ay jaar-jaaram leeraloon fa lu bari it diggam ak Serigne Saliou Mbacké diggante FC Barcelone bu Lionel Messi ak Liverpool bu Sadio Mané leer na te rafet démb record yéene kay des champions yi li ñu naan remontada loolee la Liverpool def Barcelone waa Liverpool dañoo dalal Barcelone biir Angleterre dóor leen ñeenti bal ci dara qualifié ci finalu Ligue des champions bi l'observateur nañu football katu Sénégal di Sadio Mané di football ci Liverpool dana duggatis lëf ci taarix mu di histoire ndax dana football ñaareelu finalu Ligue des champions Sud Quotidien nañu li ñoom Lionel Messi FC Barcelone amoon ci yalwaan waa Liverpool këpp nañu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 culture politique société lépp lu soxal dundu doomu aadama ñu ngi ci application Sénégal 7 man doy baan chaîne YouTube Sénégal 7 ci laay seetaan ay vidéo yu am solo di ca seetaan sport di ci seetaan tamit ay faits divers yoo xam ni day xew ci réew mi ak bitim réew. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur sénégal 7com Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.